nañ koy daal di yaatal léegi dooreekoo ko ak Adama Fall kàddu yi nga xamante ne nii yëkkati na ko jëmale ko nag ci euh, gouvernement bu yees bile jëm nag ci Farba Ngom dañ ko def mu ñaawlu ko nee na itam euh, lii koy euh, Sénégal mën a tax mu dem rek mooy ñu bàyyi leen ñu nekk ci seen jàmm lu ko may rek réew mi leneen lañ fi daal di gis lu soppeeku ñu déglu ko te si. lan la toppee Farba Ngom. musul gérer. musul dara. simple député musul nekk président de commission musul nekk président vice président assemblée nationale fekkul simple commission xam nga lu ñu bëgg bëgguñu élection am moo bëgg ñu moo tax ñu bëgg jàkkaarloog Farba Ngom nañu ñëw ñu sëgg bëre. déggoo li ma la seen seen 54 pour cent yooyu 30 pour cent la toll nañ jam élection législative dañuy ñàkk Fouta man maa la wax lii ils vont perdre Fouta. ils vont perdre certains départements ils n'auront pas cette majorité à l'Assemblée nationale parce que nag dañoo laal laalaate te ku ñu laal nit du ko laal Farba Ngom moom ku ko laal mooy laal nañ alliance pour la république Farba Ngom ku ko laal mooy laal nañ Macky Sall te ku laal Macky Sall Sénégal tàkk la mobilisation de l'alliance pour la république la remobilisation des troupes derrière l'alliance pour la république pour une victoire à ces élections législatives loolu donc ci ne heure combat jot su heure combat jotee ku dee doo gor ku dund doo gor à ce pouvoir là aux gens de Pastef préparez-vous à faire face à l'alliance pour la République lu xew essence bi nañu teggi seen tànk moo gën ci ñoom suñu bëggee ñàkk pouvoir bi ñu continuer ci liñ ne suñu continuer ci liñ ne duñu àggale pouvoir bi man Adama Fall maa wax jërëjëf euh, alaaji dégg nga kàddu yi nga xam ne Adama Fall yëkkati na ko nee na nag gars yi dañu bëgg bañ a dem euh, ci élection yi yaakaar naa nag ku tëgg ay élection am jàpp datam moom du kooku moom mooy bañ a dem ci la élection nee na looloo tax ñuy menacé fi mu toll nii euh, gars yi ku ci mel nii far Ngom nee na nag bis buñ ko laalee nag dinañ xam ne lépp dëgg la. waaw Adama de nee na heure bu jotee ku xeex doo gor. <laughs> alaaji <laughs> alaaji tontu woon li ma la laaj de. nga Adama xam nga xam nga pare xeex ko nee na heure combat bu jotee ku xeex doo gor. non daa juum rek njuumte la dafa bëgg a wax ku xeexul doo gor. Adama waxaat beneen wax daal de cinquante 54 pour cent yi bu yow li ñu xam mooy dañuy perdre Fouta 54 pour cent yi Fouta bokku ci woon di Fouta dañ koo perdre woon. xam nga moom. day wax te li muy wax maîtriser wu ko. ndeysaan daa jaaxle dafa xamul sax maanaam aadama nag day liggéey. Hmm. loolu ci liggéey la nekk waaw. ah bon waaw yuuxu yi muy yuuxu nii yëpp yaa ngi koy dimbali sax yow mi ko indi ci kii bi nii far ba gis ko defe ne mi ngi jàpp ci liggéey bi fi mu doon day liggéey nag. Ah, Adama day daan dooleem. Ah, waaw fi doon nii xaalis bi mu déggal far ba ci la bëgg a mos. Ah. lii yuuxu yëpp loolu dong la du leneen. mais Alaaji est-ce que ak solidarité parce que ñoom ñoo bokk seen parti kay ak Farba séquñu dara. Adama dafay pourtant xeexal na Amath Suzanne Camara de te taxul. waaw mais day buruxlu suñ toll nii dama la bëgg a xamal ne la Adama kii boo deful ndànk mu sotoo ak sax far xam ko. ah. yoo xamu xamu xamu xamu xamu Adama mi. day buruxlu day forcer ay relation yu nekkut lay forcer fi mu toll nii comprendre nga <laughs> maanaam moo tax xamut sax nu muy xeexale ki muy xeexal. waa coono bii pour. ku laal far ba réew mi tàkk. far boobu xam nga adama waxi caaxaan rek lay wax hmm. Hmm? waxi caaxaan rek lay wax ma jigéen taaloo kilim bële da ngaa taaloo kilim bële mu amee bu xam nga ay caaxaan rek la ne wax yi muy wax yëpp ay waxu ko daanu ci sareet rek hmm. waaw ah mais alaaji nag day solidarité. ñoo bokk non non non moom ban solidarité ban bokk parti moom fan la nekkoon moom doon wut ay photo yu makki saal di tappale di wut ay kii Adama dama la bëgg a ku mu xeexal fan ban baa nga mës a dem gis fa Adama Fall. Ahmed Suzanne Camara keroog bi ñu ko fi jàpp wàccu ñu ñoom ak ñoom Omar demoon seetaan xool ci lu mu ne bi mu ñëwee nettali booba la fa gëj yaa ngi dégg ñoom lu Ahmed dugg ñoo ko ci dugal ba noppi arrière Ahmed Suzanne Camara ngi ne ay mbokkam génn nañ di ñaan jéggal comprendre nga hmm. ñu ngi ñaan sax pour ñu jéggal ko quoi parce que euh, ay mbokkam génn nañ doon ñoo xamante ni bi wax dëgg fa yàlla jéggalu nañ ci kanamu penc mi. waaw demander excuse donc loolu mooy li nga xam ne parce que gars yi nii lañ lay def. Ah, dañ lay ñëw bëmax la bañ tëj la ñu bala defuñu ko fi waajooju ba jaxate. ba jaxate waaw mm-hmm. ah. suuxlu ko ba mu dugg prison après nuñ def. toog di seetaan zapret ba pare ci. Ah, duñ ko duñ la xeexal mais lu tax xam nga lu tax. mbir mi du mu bàyyee bi mu génnaatee bi gis naa ko mu def émission ci Maimouna Ndour Faye nit ki mën nga opposé wu li mu wax ni mu mujjee wax noonu loolu mooy wax ju yenu maanaa comprendre gis naa booy di ko mbalag ak affaire yooyu mais noonu mais li mu wax noonu pour man loolu la nit ki da ngay responsable quoi am na wax yenn wax yoo xamante ni waroo ko wax doomu aadama mën nga opposé wu mais nga bañ a ànd ak nguur ki mais nga def ko façon boo xamante ni bi façon bu civilisée la mm-hmm. du dëgg mm-hmm. mais mais est-ce que nekkul du li mu am Farba mooy Macky moo tax te ñoom aadama Fall yàgg nañu xam mbëggeelam ci Macky Sall c'est que yow yaa koy kii chaque jour rek mais oh, alaaji nag xam nga ne oh, nag oh. Adama Fall nag moom dafa dafa dafa bëgg Macky nag bëgg Macky Macky bëgg koo ko gën Macky ko bëggut ah bu ko Macky bëggoon recevoir ko ku dem ba jël ay photo di tappale dem ci mbootaayu jigéen ñi jigéen ñi ko ci bitti génna ah donc Adama. nañu bëri quoi boo gisee toogee nii xam ne. nag xam nga lii da ngaa bëgg man da bëgg ma. Eh, achever kii ci parti bi nag nañu waxante dëgg nag <laughs> wala monturam bu rafet bii mu takk karavaatu. tër xuus waa jàpp yi <laughs> yéen c'est que da Adama Fall. Adama Fall. mii tey. Hmm. Adama Fall bokk naa ci ñu ko créé. émission ataaya. Hmm. dama koo xam. xam na c'est que gars yi dañuy gis aadama muy tërëre dama jëlem dama ko xam Adama ni ma ko xamee sax xamee wu ko boppam. donc ko maîtriser. xam naa léeg-léeg wax ko mu ne loolu kañ la ne ci man après xoolaat gis ko ci boppam dama koo xam. Hmm. dama ko maîtriser c'est buy théâtre damay xam ne mi ngi ci théâtre la de am maanaam wax yooyu mu wax yëpp waxu théâtre la day théâtre rek. Hmm. taxawu naan ku laal far ba kërëb kërëb gis nga bu ñuy laal far ba kenn du ko fekk day daw dama ko xam xoolal aadama Fall xool ko xool xool xoolal kanamu Adama Fall bi xool xoolal kanam gi. ah alaaji nag kii nag dara newu ci daal ku gëm parti bi la di xeexal parti. kanam ku gëm nga gis. Adama bi kanam gi sa digganteeg yàlla xool kanam gi Adama Fall bi xool ko xool <laughs> kanam gi boo ci gis. kanamu Adama Fall bi yow njàmbaar njàmbaar gis nga ko ci kanamu Adama Fall bi njàmbaar. xoolal rek carrément yow fi mu toll yow xam nga jigéen ñi par exemple dañuy bëgg héros ak affaire Adama Fall gis nga ko lenn héros ci moom. waaw waaw waaw dafa mel ni nag wax dëgg yàlla de ah moo ngi noonu daal <laughs> jërëjëf. lekkatu naajo bu mag baal ko nag. Mhm. baal ko baal ko garaaw. bu ëllëg ba nga xoolee mel ni ku jóge ci lekk piire naajo bëgg a ñëw bëgg a. piire naajo <laughs> jërëjëf xaw nga zaaru Adama Fall yi. waaw euh, li ñuy wax. Mm. vraiment. maanaam ku leen déglu. dañ lay sànq théâtre daal. non day théâtre xam naa mm. ko Adama xam na xam na ni jàpp naa ko. Mm. day théâtre mm. li mu wax dara la ci gëmul. gëmu ko que mi ngi ci liggéey nag. ba bu gisee sortie bi comme tey dimbali ngoo ko wane nañ sortie bi ak affaire yooyu far farba mën na ko gis ne Adama ak may jàppale. woo ko alaaji nag pour kii nag ko yàqal yow ah, tamit nag bàyyi noonu. pour mu xam parce que tamit. bàyyi noonu rek garaaw. Aïcha mi ngi noonu baal ko alaaji aadama nag lu ñu mën di wax sa xarit la waaw dëgg yàlla mi ngi noonu.